nuyu bu baax di la moom tis bi képp ku nekk ci média rek sa kaw la ñu ngi leen di jaale nag bu baax a baax. waaw ñu ngi lay jaar bu baax di la jox sa wàccuwaay di masawuwaat nag Sénégal gépp parce que Ndiaye moom ñëpp ñoo ko ñàkk waaye rawatina nag doyen ndax ku ni doyen ni Ndiaye ndax euh, dama naa ni que bokk na ci ñim njëkk a defal émission ci télévision Futur Média bi mu jógee Kouthia Show rek man maa ko dalal émission seetu mu nekk nag ku am jom ku baax ku rafet xol njaay exemple la ci nit yi nga xam ne ñu ngi ci rajo yeeg télé nit ku oyof la woon nit ku bëgg si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye nit la woon koo xam ne ku amoon diine nit koo xam ne dañ doon werante sax ci ay aaya ak ay xasida ndax baaxam yaatom lu melni ni su amé dafa doy exemple ci ñepp ñi nga xam ni ñu ngi yëngu ci walu liggéey ak lu mënti doon li dafa wara tax gaay xolaat seen togaay bu baax kenn ku ci ne bëggaat sa morom fonkaat sa nawle joxaat nit ñi cër ta xam ni du dara donc ñing koy ñaanal yalla xaaré ko aljana ñi nga xam ni aussi ñom la doon bëggal itam ñun ñëpp nako ko ñaanal ndax nekkoon na nit koo xam ne daal àddunaam sëpp bégal na ko doomu aadama yi. Euh, nan nga yëgee génn àdduna ki nga xam ne mooy Ndiaye. man maa ngi xëy suba di woote rakk ji naan ko sama waa ji mu def xam naa maa ngi fiy jaar nes tuuti rek ma gis ay ripp yi mel ne bu ma la ko wax di ma ni waa lii nu mu ma woo rakk ji ni ko waa yow man li may gis lan la rakk ji itam ni ma ma nit de xaw ma lu xew parce que man génn naa fa. ma ne ko non il faut ñu vérifier loolu parce que gars yi ñu ngi di wax loo xam ne si nekkul parce que boobu gëwuma ko après nag par la suite laa gis ni que nag waaw na daal waaw lu yàgg feebar euh, kenn ku nekk di wax rek ni dañ koo négliger ci feebaram. loolu moom amul non non amul feebar na yàlla dogal na euh, faju na ni war a fajoo waaye yàlla nag bu soxlaa moom ñëpp dañuy ñàkk waaw noonu la demee daal waaw. ñu ngi leen di masaw jërëjëf ñu ngi lay masaw ñu ngi leen di masaw di leen nuyu bu baax di leen jaale ki nga xamante ne mooy Ndiaye. waaw soxna si ñu ngi leen di fay di rafetlu yéen it seen teewaay ndax jullit amul lu dul lii moroomu jullitam wàññeeku mu ñëw teew fa rawatina yéen nga xam ne nag da ngeen di liggéeyandoo ak ñun dëgg yàlla yéen it rafetlu nañ seen teewaay ci bis bi. ñu ñëwaatal ci sa relation ak Ndiaye. waaw Ndiaye moom relation relation doomu aadama yëpp la. waaye bu ñuy yox dañuy wax ne chargeur universel la ñëpp ko mën a chargé nit la koo xam ne jullit la boo xam ne ñëpp la amaloon jàmm njaay boo ko gisee kaf ak reem moo lay gën a prêter attention ci ni muy duggante ak yow nit ku baax la nit ku jullite la mais yàlla nag bu soxlaa ñëppay ñàkk suñu borom moo soxla waaw dañuy koy ñaanal comme ni ñuy ñaanalee jullit rek di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana te malaaka yërmande teeru ko waaw. kon ñu ngi lay nuyu bu baax di ñu ngi leen di fay waa Dakar Buzz. ñu leen di masawu nag di bokk ak yéen métit bi. waaw ñu ngi koy jaale Sénégal gi yëpp wax ni ku baax dem na koo xamante ni kii daal njaayu àdduna bi la du njaayu artiste yi rek du njaay Sénégal njaay àdduna bi yëpp la. Hmm. sa njaay boo ci mënoon ñëwaat. diggante bu rafet rek diggante boo xamante ni bëggul kenn mer. bo boo ak mom ci milieu da nga yaakaar mom moom milieu bi sax moom mo fa dëkk fekk dëkku fa donc lépp lo xamante artiste bëgg nako mu xam ci li nga tariika bi nga bok ci li nga li lay rétan lo njaay da koy def bu dé xaaliss mu sédalé ko nga moom mu top lool dal mom xamna wax ci mom waaw mu tëdd diir feebar kat dañuy dégg ci fameem ñu né kat da nga ko doon toppatoo ñun ñëpp ko don top ah ñun dal def nañ ci li nga xamante ni suñu warugar toppatoo wuñ ko dugaluñ ci suñu xaaliss waaye li nga xamante ni mooy dem seeti ko li nga xamante ni mooy ñoom per bu xar male nga xamante ni ñoom ñoom ñoo ñoo ñooñu gën a nekk ci ak ñoom TFM demaat si ñu def ba TFM jël ko en charge boobu ñun ñu ngi toog donc lu amul seede baaxul toog nañ per bu xar woo direction TFM ñu war ko opérer samedi ñoom ñu joxe ndigal nii dinañ jël affaire bi en charge ñëw ko ci clinique bi ñu ko opérer waaw. négligence bi ñuy wax ne waa TFM dañ koo seetaan am. ah fekkum fekkee ma ko de en daal toog naa ñu oote ci seen direction. ñun ñu xamuñu woon feebar bi noonu la toll parce que Ndiaye boo koy woo téléphone doo xam lu ko dal bi per bu xar envoyé ordonnance bi la doog a xam ni feebar foofu la toll opération bi ba dinañ ko yóbbu ci mu war a samedi boobu waaw Sénégal nañ bàyyi wax lu leen wóorul baawul waaw. tey ci ban anam nga yëgee ni rek génn naa. wa tok sank rek dama nekkon dem di defi waron defi Ben programme tournage pour suba ci la joge dok Malika après lal ma woo di laaj man len ah waruguma parce que déggaguma ko donc après la degg ni TFM moné nako yoy non noonu ma woo père bu xarbalé bale deug la ci lan dem clinique ba fim nekkon ñu ñoko jëlé ko indi ko fi ci morgue bu fii nii waaw ngay porteur de voix Sénégal fani bari tis lolo ku ñu rayul rek agressé nañ la nit ñi diko ko lu torop nan nga am ban jàngat nga am ci Wajangat jangat bi ma am moy nan dellu nan nan nan nan nan assemblée nationale mu fi jariñ nan voté peine mort ku ray nit ñu ray la mo koy faj ay wax yi faju ko de yalla mom mo ne ci yalla ci mom mi ñu sàkk moom mi bind kamelam bi da cee bind ku ray nit ñu ray la léegi lan la ni xaar waxul catholique bi bu ray nit nan ko yërëm de ko ni nit bu ray nit dang ko wara ray du dëgg loolu ndaxam ñi nga xamanteni ay États-Unis ak yenen affaire amna droit euh, loi yo xam euh, euh, ki dekk yo xamanteni ñing koy def ñu dañ ko wara def parce que wax bi fajul dara faj bi sa yo ko waxe ya nga influencer kenen mu dem essayé ji mais bu nu defone pen de mort ku ray nit ñu ray bu nu reyee ñaar nit léegi nit ñi nek ci jamm ba pare nit ñi nga xamanteni ni tam xam ni affaire agression bi dafa am ñi nga xamanteni li ni yor tolloowul ak sen dayo yor ay fan bo xam 900000 la ci yow seen keur du ngeen lek gerte tiaf bu la agresseur bi damee ray la ya ko def de du deug parce que ni ku nek agresseur limi wut moy posette xam li ci ne yor iPhone bu seer wala sëba bu seer wala len scooter bu ah heure boo xamante ni leer na fii boo fa jaaree woru nga bañ fa jaar parce que tamit mi ngi noonu dëkk bi kenn mënul garder ku nekk mais ku nekk yaay contrôler sa bopp xam li ngay def du dëgg noonu la bi demee en tout cas daal ñi nga wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy agressé bu fekkee ñi ngi may dégg li ñuy def moom du liggéey parce que rey doomu nit parce que xaalis tegul fenn comme ki rey ndaw si débarqué rey jabaru ja rey jabaru jàmbur ak doomam di ngénte sa jabar ak sa doom dañ rey <laughs> loolu mooy wax de amul ay affaire yooyu yàlla loolu la bëgg. mais en tout cas daal ki nga xamante ne moom moo tax tey ñun ñëpp ñëw fi daal ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp di ko ñaanal yàlla yàlla xaare ko àjjana di wax nag dem na ku gore dem na koo xamante ne comme ni mu ko waxee kenn xamul ban tarixa la bokkoon dem na waaw loolu daal xam naa ko ci waaw. ñu ngi leen di masaw bu baax di bokk ak yéen tiis jërëjëf jërëjëf. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay soxna si. comme que dëkkandoo Ndiaye nga rek ñu ngi lay masawu di bokk ak yow tiis wi. waaw de tey ku ne mun na ko jaale mbokkam ku ne mun na ko jaale moromam njaay du woon njaayu Pikine du woon njaayu dakaar njaay Sénégal njaay njaayu àdduna yëpp tey tey sax lay soogu musa nangu ni wax ci sud yu mel nii ndax bu ngeen fàttalikoo 2018 defoon na fi soog soog boobu mu defoon kii mu fi xale boobu sama doom la mooy sama taaw xale laaloon 2018. Ndiaye laaloon 2018 ba mu yàlla moom bakkanam sama taaw la kooku waaye ma ci am lu ma ci wax tuuti Ndiaye nitu kese Ndiaye nitu kese ni may wax ak yow bi ñu waree ba ci ginnaaw ëllëg si lañ mujjee déggante bi ñu korité altine talaata àllarba lañ mujjee déggante mu ne ma dama def opération ñaanal ma yow taalibe seex nga boo may ñaanal may jóg ma naan ko si kàttanu yàlla yàlla yàlla fay nga jóg amee da nga ko baaloon. bi loolu amee du tayef du tayef gis nga agresseur bi rey nit sax li muy def du tayef ndax balaa mu koy def day mandi ji rawatina koo xamante ni da ngaa yor waruwaay xamoo fu ndog-ndog di ñëwee xamoo fu ndog-ndog di ñëwee ba pare jaay dëkkandoo la maa ngi moom ñoo takkaloo benn kër boo génnee sama buntu kër buntu këram nga ciy teg boo génnee sama buntu kër buntu teg man loolu bi mu amee dama. dama jël sama responsabilité ne police kii libéré leen ko mu dem si njabootam borom njaboot la waaye tey loolu rëcc ma ab Ablaye Ndiaye musul toog semaine semaine musu ko toog te woowu ma te doonoon nit ku oyof nit ku woo xamante ni te loolu yàlla moo ko wax nga kuy reetaanloo ay nit kooku warul am noonu te moom toog foofu la tool fu ma woowee dina yëkkati benn baytu taalibe Cheikh woyal ma ko wallahi lazim ba dimanche barki démb laa jël sama téléphone di ko woo pour nemmeeku ko jot fereeram bi mu fereeram bi nekkoon ak moom mu ne ma day nelaw su yeewoo dinaa ko wax mu woo la dimanche barki démb démboo si tegu ak tey ji wallaahi lazim wallaahi lazi waaye ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla bu cat jiitu ci bàmmelam te am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax ndax am na interview bu may seetaan mu naan musuma tooñ kenn man ku ma tooñ bal naa la te loolu moo am Ablaye musuma dégg ku ne Ablaye moo ma tooñ wala moo ma wax lu ma naqari musuma ko dégg loolu si àdduna suma dégg ku ne Ablaye moom moo ma tooñ wala moo a wax lu ma naqari loolu maa koy seedeel yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana bi jaahi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla yërëm bi jaahi taaha. ñu ngi leen di masaw. waaw ñu ngi leen di masaw yéen tamit jërëjëf.